di siyaare itam soxna yi bàyyi xel almisbaax te bu ñu waxee soxna ba noppi génne ko ci biir jigéen ñi muy tegtale jigéen ñi nga xam ne am nañ yitte ci seen bopp am yitte ci seen borom subhaanahu wa taala ndax ñaari yitte yooyu moom la nit ki di boole ngir mën a dem mooy ginnaaw bi mu amee yitte ci boppam mooy xam moom mooy kan fan la jóge ak fan la jëm am yitte ci boroomam subhaanahu wa taala moo koy dimbali ba lépp luy tax digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ratax yitte jooju jaral ko lu ne ba diggante boobu mel ni mu war a mel ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci tawféex jooju ndax déggal borom bi tawféex la ku yàlla may nga di ko jéem a def loo sant borom boobu la ko may subhaanahu wa taala rek doyut ndax nit dana amug wér lool waaye du am tawféexi déggal boroomam nit dana bari le lool waaye du am tawféexi déggal boroomam moo tax ku yàlla defal tawféex jooju loo ko sant doyut ñoo ngi leen ciy ndokkeel bu baax a baax di ñaan borom bi defal ñu tawféex noonu it lañuy ndokkeele doomi soxna yépp nga xam ni ci biir gaay yi daa amu gaay loolu rek la doomi soxna yi di tekki mooy gaay yi ni ci biir gaa yi tegtalewut ku jigéen jur ndax ku jigéen jurut amut waaye ci biir gaa yi nag daa am gaa yoo xam ne dañoo am yitte yitte jooju moo leen dimbali ba bu gaa yi bàyyee ñoom duñ bàyyi ba mujj ñu raw ña bàyyi woon ñëpp ba mujj ñu raw ña bàyyi woon ñëpp ni nga xamant ne buñ nee dañuy koor te muy farata ñu ànd ñun ñëpp waaye ñoom bu ñoppee toftal ci ay naafile yu bari buñ ñee julli te muy farata ñu ànd ca ñu ak ñëpp waaye buñ noppee itam ñu defaat ca naafile yu bari amaat yittee defaru ba mujj defaru googu jural leen ñu jag ndax ku yàgg jag ku yàgg jag jagal eh, borom bi mën naa def nga jag bu ko defee nag ñooña nag aw gaay lañ ci biir gaay yi borom bi mooy sélectionné noonu aw nit sélection boobu mu defal doomu aadama eh, ka ca gën a kawe ne ca ca njob baxtal la mooy yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñoom ñoo ca njobbaxtalu mbaax aku kawe ka ca gën ca ñoom mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wootee ña jamonoon te woon ak moom am tawféexi ànd ki gën ñëpp loolu tax na ñu bari ca ñoom gën ñëpp baax lool ku la gën a juboo ak njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la gën am njàngaleem nag moo nekkoon liggéey ak jaamu yàlla mën ngaa jàppe noonu baat bi mooy liggéey ak jaamu yàlla ndax ci waxinu olof la ñuy firee baat bi di wax liggéey ak jaamu yàlla waaye mënoon ngaa wax ne rek jaamu yàlla ndax liggéey dara ëpp ko ca doole mënoon ngaa waxin ni liggéey ndax loolu ci boppam rek mooy ak jaamu yàlla ndax boo leen taxalee ñoom ñaar léegi dox ak ñoom ba dajale leen day daal di tàmbalee jafewaat te boole leen daal di doon loo xam ne lu gën a xelu la suñu bindu almisbaax bi nga xam ne moom la ñu génn dañ doon baamu bind yi nga xam ne moo jàlloon ñoo ngi jéggulu ci baamu googu waaye ñoo ngi doon waxtaane ci la ko jiitu lu jëmoon ci niñ war a settantale alxuraanul karim ndax buñ ko setantalu jeexital yi muy def ci ñun mën naa des waaye buñ ko seetantalee jeexital yi muy def ci ñun day nekk jeexital yoo xam ne yu kawe kawe la moo tax léeg nga dox ba ci pénc mi ba mu yàgg rek nga yëngal sa bopp bi ne cay alxuraan ci kaw boo xamee dige yim dige woon ni ñuy doxe ba di ca àgg benn par benn ak yoo xam ne àgg nañ ca ba noppi ak yu ne ca suñ kanam te dañ cay masa àggi waaye yi nga xamante ne daa waxoon ne bu ko aw nit wonee ginnaaw seenug jëm ci kanam mën ko nekk nit ñi ko won ginnaaw ni seenug jëm ci kanam ñàkk mën a nekkee nga gis alxuraanul karim nga setantal ko da nga gis yàqute jikko yu baree bari yi nga xam ne mi ngi am ci pénc mi joxoñ bi nga xam ne moom la joxoñaloon nit li ko ci mën a musal te nit ne ko garaawut baal ma dëburiyal sama bopp mu ne ko kon doo ci mucc mukk ndax wa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan danka koo xamante ne wan na ginnaaw yoon wi ma xàll ne nañ ko dunde ci àdduna ngir am dund gu baax ak dundam ci àdduna day nekk dund gu jafe baat boobu rek buñ ci taxawoon di ko danañ gis ne buñ xoolee suñu pénc li fi jafe lépp dañuy xam ne wan ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala ak yoon wi mu rëdd ne nañ ci jaar moo ñu ko teg moo ñu ko teg boo ñëwee ci wàllu euh, li dox ci suñu diggante sàmm li ñëpp moom buñ ca dellu woon ca na ko borom bi jàngalee ak nam tàggate woon nit ki ñu ko war a dénk mooy kan buñ ca doon dox jafe-jafe yi ñu ciy jànkoonte li ci ëpp dootuñu jànkoonte ak moom ndax ñam tàggatoon te formé leen ñoom noona lañ meloon boo ko tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba agsi ci al xulafaahu raasidun ak ñu baree bari ca ñëwoon démb te tegoon seen tànk ca njàngalem borom bi subhaanahu wa taala wa man aarada an zikri fa inna sosan maisatan danka waaye buñ delluwaatee ci aaya jooju setantal ko ci wàllu jikko daañu gis ne feebar yi nga xam ne moo ñuy dal ci wàllu jikko tey dal suñu société nga xam ne yu baree bari yoo xam ne nitewut fi bàyyi ma la nit mën a xëy nekk ca wala mu xëy di ko wutal doole te moo xam moo ko yëg wala yëgu ko ku xoolaat aaya yooyu day gis ne bu ñu setantalee alxuraan tàmbalee mucc ci loolu ak tàmbali koo moytandiku ndax e, suñ borom subxanahu wa moo am digle yu bari yu mu digle yoo xam ne amul ñum ko beral waaye daal képp ku xas ba nangu ne. mooy yàlla te moo yónni yonent yàlla muhammad digle yooyu dalaa ñeel nga war caa taxaw sa kemtulaayal kàttan ci jëfe ko yëmul ci digle ko mu yónni ay yonent ñuy ñëw nag di joxe ndigal yi di fàttalee ndigal yi waaye samp ndigal yooyu ngir ñu jëfe ko jaral leen ñu takk xare ku takk xare mooy man noppi naa ngir joxe sama bakkan ndax li li nga xamante ne moom laa bëgg mu dox dox noppi naa it ngir jël sa bakkan yow mi ko gàllankoor di bañ mu dox nga xam ne loolu moo nekkoon mission wu yonent yi aleyhimu di taxawal dëgg googu di ko woote di ci góor góorlu naan nit defal nàngam defal nàngam nit defal nàngam nit defal nàngam nit defal nàngam ba mu yàgg mu naan nit bul def nàngam nit bul def nàngam ba nit nite wala moom mission wam jeex mu buubi bagaasam dem keneen ñëw tàmbalee fam yemoon continuer ci nit naan ko defal nangam bul def nangam moom itam ba mission wam jeex mu dem moo tax bi saxaaba yi jógee màkkatal mukarram dem fële ca Éthiopie ca Najashi yi lañ ko waxoon mooy ñun ay ay nit lañ yoo xam ne ñu ñàkkoon a xàmmee lañu waaw ay ceddo lañu woon ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ daan lekk medd dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ daan jëfandikoo lu ñaaw lekk medd mooy lekk loo moomul rek dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne lu dugg ci suñu loxo rek ku ko jekku lekk waaw maanaam ku man sa moroom duma noonu la ñu dunde woon <laughs> xaw ma nag ba xam tey dañuy mel ne kuy defaat discours ba di xaar yonent bi ñëw génnee ñu ci wala ndax dañuy turne xool ba xam nag bi ñu ci génnee bi mu ci génnee ñële génnee waale nañ ñu ci ñun wala déet ay laaj la rek yuy tegu ci pénc bi waaye lañ ca tegoon mooy dañoo nekkoon di jëfandikoo ay ñaawteef maanaam di jëf-jëf ju ñaaw ci suñu pénc ba mu demee ba ca jeexital ba nag mu ne suñu boroom tànn ki gën ci ñun waaw tànn kenn ci ñun koo xam ne ñun xam nañ koo xam mooy kan mu yónni ko ci ñun loolu moo nekkoon mission wu yonent yi mooy ñëw ngir defar nit ñi ba ñu ba ñu ba nite yàlla nañ nite ñun ñëpp ndax boobaa yu baree bare danañ ko jomb léeg ma songoo benn xew-xew bu xew di ko bëgg a waxtaane ci baax xel mi dem ci ay kilifa yoo xam ne mën naa am sax boo moytuwul yaa leen koy yëgal ndax ñoom def nañ yitte ba yu ñàkk xorom yooyu yëpp nekkuñu ci ñoom duñ ko déglu duñ ko bàyyi xel ña feneen nga di koy bàyyi ndax jàpp ne yët leen ko sax indil leen lu ñu soxlawut la waaye léeg nga bàyyi ko fi it bañ koo waxtaanee bay bëgg a dem yëg ni ñoom itam buñ ko yëgut day am lu manqué ci seen ay responsabilité maanaam dañ koo war a yëg wax ceeg ñañ ca war a waxal waaye wax ceeg seenu njaboot nga ne kon ëpp na fee ñàkk waxtaane nga daal di koy far indi junj ko waxtaane ko téere boobu di alxuraanul karim di téere bu màgg boobu inna fi dalika la dikra liman kaana lahu xalb aw alqa sama wa huwa shahid téere la boo xam ne dëgg-dëgg dëgg-dëgg mooy téere bi nga xam ne moo yayoo ñu setantal ko ni mu baree nit ñi koy jàng ci réew mi di ko mokkal ñu daara yi baree tey gën di yokku maasha allahu ndam yi nga xam ne alxuraan mi ngi koy am ak mag ñi nga xam ne ñu ngi leen di tudd di tudd alxuraanul karim ci réew mi day jaadu nag léeg-léeg ñu jël alxuraan ne ko bàcc teg ko wala bëcc buñ ko tegee nag bañ koo teg tegu jaar ci jàll maanaam jàng ko rek barkeelu jàng xatmu bi donte loolu baax na lool yal na ko yàlla barkeel waaye nag teg ko tegu setantal ko settantal ko settantal goo xam ne bi mu duggee ci ay nopp day jàll ci ab xol day jàll ci ab xol waa ji jël boppam def ko muy actualité ci biir alxuraanul karim mu xool ba xam moom nii mu toogee ndax mooy toogin wi alxuraan rafetlu wala déet ndax suñ borom neen dama koo wàccee moom alxuraan mu nekk aw lay mu nekk aw lay maam nekk ay preuve nekk luy leeral nit ki fi mu war a jaar mhm. ma wàccee ko mu nekk ak leer yaa ayuhan la wax ñu ne ko ah mu teg ca ne xad jaakum burhaanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuram mubiina ba dend moom te nekkaat beneen yaa ayuhan naasu ci suuratu yunus booba da caa teg xad jaatkum mawizatun min rabbikum wa sifaaun lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil muminin borom bi nee na ee eh, yéen yéen nit ñi tey waxut jullit yi waxut waa dëkk sàngam waaye nit rek la wax nit <laughs> nga xam ne annaasu lay doon bopp baa nga ca kaw tànk yi féete ca suuf rek muy nit ku ci génnee yaa sàggan ba génnee ci sa bopp waaye borom bi moom boole na ca képp koo xam ne nit nga ci woote bi ñu ne ko ah, mu ne aw lay dikkal na leen maanaam burhaan ay preuve yu bàyyi ko ci borom bi subhaanahu wa mu ñëw nag indil leen ak leer gu yaatu maanaam indil leen solution ci lépp lu ngeen di dund ci àdduna moo tax luwaaye alxuraanul karim tëral te bëgg ñu di ci dox ngir suñu dund am jàmm boo demee ci réew ya nga xamante ne ñoom duñu ay jullit bokkuñu ci almuminuun nga xamante ne bu waxoon yaa ayyuhal lazina amano ñoo ko moom waaye bu ne yaa ayyuhan naasu ñëpp dugg ci waaye aw nit lañ ñoom biñ jëlee luwaa yooyu yëpp taxawal ko ci seeni réew ak lu man di xew réew ma moom ci wàllu luwaa ak liy dox ci diggante nit ak nit bu nit ki tëddee nelaw bu nit ki tëddee nelaw ndax day yëg ne dana dund ci sécurité day yëg ne dana dund it ci ñu sàmmal ko li mu moom tey itam jàmm day daal di tàmbulee am ñu tàmbulee set tàmbulee dundu ci am pénc moo xam ne dunduk àdduna gi moom jag-jagal nañ ko ba mu jag loolu mooy li nga xam ne ñi nga xam ne aw nit lañ te duñu ay jullit dañ koy génnee ci njàngalem alxuraanul karim maanaam tëral ci ay luwaa yoo xam ne day jagal seen àdduna lañu sàggane nag te loola di pas-pas mooy li nga xam ne nag moom day àggaale ci jagalal leen ëllëg fañ jëm moo tax suñ boroom nee na alxuraan yii da cee nekk moo tax mu mat a setantal yii may bëgg a wax ndax aay ñaareel ji ma jàng léegi suñ borom da caa wax ne aw waaraate da caa nekk waaraate waaraate mooy informer nit ki maanaam xamal nit ki ci ngay waar da koy xamal da koy xamal loolu mooy dëgg dëggi waar ko mooy daa am loo koy yëgal ne ko mi ngi fi waa ji dafa toog dend ak Euh, sawara soo xam ne mën naa lakk yéreem kiy ñëw di ko waar si mooy ki xam ne kii dafa toog waaye xam ne itam toogaayam bi jógagut xam ne lim dend lit aw sawara la woo xam ne mën naa lakk ay yéreem mu jóg gi mu koy wax nag ne ko jógal àndul moytul dana la lakk ndax xam na ne da koy lor moom bu gëmee li ko waa di wax day moytu day jóg rek toogi feneen mooy kon day jóge ci lu jaaduwut lim nekkoon dem toogee ca la jaadu waaraate wi loolu lay jariñ dafa jàpp ci loxoom yëkkatee ko fi mu nekkoon mu jóg bu fekkee gëmu ko day toog wala mu weddi waaraate wa wala mu wéy ca la nekkoon bu ko defee liy lore bu ko fa fekkee da koy lor loolu nag dafa nekk ci alxuraanul karim moo tax suñ borom nett li ñu ay gaa yu baax ci alxuraanul karim wax ñu fañ mujj aw waaraate la ci yow maanaam bind la bind la boo xam ne boo bëggee baax royukaay yaa ngi noonu ci alxuraanul karim suñ boroom indi leen suñ boroom indi leen indil ñu leen nañu ulaayika alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa washuhada wasaalihin waaw gaa yu baax yaa ngi noonu yow mi koy laaj ndax ba ngay jàng alxuraan ci suurat alfaatiha danga ko waxoon ne ko yàlla nag ñu boole ci ñi nga xam ne an amta alayhim xéewalal nga leen mu ne la nag gaa yooyu ulaayika allazina an amallaahu alayhim gannaaw ba mu limee yonent yi ak seen yitteeg taxawaay yi amoon ne gaa yooyee mooy ñi nga xam ne nag ñoo amoon xéewaluk ngëm ñoo amoon xéewaluk topp borom bi subhaanahu wa taala jéem caa bokk waaraate woowu nekk ci biir alxuraanu karim buñ ko seetantal dañ ko dul mën a jariñoo niñ ko war a jariñoo dëgg-dëgg waaye nee na moom alquran wa shifaun lima fi sudur moo ñëw nag nekk saafara nekk saafara nekk luy faj feebar yi ne ci dënn yi uxut feebar yi ci yaram yi waaye feebar yi ci dënn yi noonu lay faje it feebar ci yaram yi waaye feebar yi ne ci biir suñu dënn yi feebaru iñaan buñ ko settantalee alxuraan te teg ci tànkam lu nit am nit da ko yéene feebaru siis buñ ko seetantalee ci alxuraanul karim nit ki day xam ne mënta jël wërsëgu moroomam ba yooyu yëpp jeex benn par benn moom alxuraan ñëw kon ngir fajal ko nit ki nga xam ne bu ñëwee rek bu ko nit ki seetantalee jël garab googu di alxuraan garabu alxuraanul karim buy nuyoo léegi day wax asalaamualeykum ba noppi gëm ko xam li muy tekki gëm ko xam li muy tekki mooy yow mi toog maa ngi lay ñaanal jàmm yàlla nekk ci yow kon man gannaaw dama laa yéene jàmm ba di la ko ñaanal duma ŋab mukk aw ay di la ko indil allahu akbar tàmbulee doxe noonu bu nit ki ti soolee ci wetam sant yàlla mu ne ko yar yarxamukallah ndax lan dafa defaru léegi dafa bokk dafa bokk alxuraan dafa ñëw kon di ko fajal feebaram yi mu am moo tax suñu boroom ne ko dee ko wax del del wax yenn yi ci saw làmmiñ ngir ñu xam ne yow wér nga ci feebar yooyu mooy del nuyoo di wax asalaamualeykum di muuñ mooy yaa ngi yéene nit ki jàmm nit ki tisool yi nga ne ko yarhamukallah yaa ngi koy wan ne ko yéene nga ko jàmm yal na la yàlla yërëm nit ki tawat mun laggal nga seeti ko te boo demee nga ñaanal ko nga romb nit ki mu am lu rafet nga ñaanal ko mu ràppal ko ak jàmm ba yooyu yëpp jeex dafa nekk kon alxuraan faj gu muy faj feebar yi nga xam ne feeñut ndax dafa am feebar yoo xam ne da koy yóbbu hôpital ñoom docteur Ane Dia tegal la appareil yi xool xool la defal la li ñuy def bind wane nàngama ko dal ak nàngam ak nàngam kon dafa soxla garab guy faj loolu ak garab gu ko cee dimbali ak garab gu ko cee dimbali daal di lay bindal jox la nga dem daal di naan suñ borom def taw féex nga tàmbalee wér feebar yooyu yomb naa faj <laughs> ndax day feeñ day feeñ kim dal aw yaramam day sot dootu mënatee dox wala mu tàyyeel xaw a kooñooñ tuuti ñu lëng ko yóbbu feebar bi nga xam ne nag mooy feebaru biir bi du feeñ mooy waa ji day solu def ni mu war a def yëpp waaye ndekete mi ngeeg feebar yoo xam ne moom yëg-yëgu waaraate ak yëg-yëgu dellu ci alxuraan settantal ko loolu dong moo ko mën a waar dafa am beneen docteur boo xamante ne moo koy faj bu bokkut ak ñoom docteur Anna docteur boobu mooy docteur bi nga xam ne moom mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoon yim tracé woon ci la nit ki di jaar di ko jéem a roy tàmbalee jub moo tax ku taxaw ca are ba di ko teg ca yoon wa te mooy waaraate kat ba te mooy sëriñ ba mooy ka koy jàngal na góor góorlu ba teg ko ca yoon wa te génn ca moom mhm. teg ko ca yoon wa te génn ca moom bañ koo teg ci kawam moom waaye na ko teg ca yoon wa rek te génn ca bu ko defee mu daal dem moo tax mu teg tekkee ne wa hudan alxuraan itam dafa ñëw nekk nag loo xam ne ak njub la njub njub njub mooy orientation yu leer moom la alxuraan indi nga xam ne meññet yi nga xam ne moo ci nekk yëkkatiku gi nga xam ne moo ci nekk nit ki du ko am lu dul ne dafa nangoo yéeg ci kaw alxuraan jël cër bu rëy ci ak dundam jël cër bu ci ak dundam ginnaaw bi alxuraan nekkee eh, burhaan ginnaaw bi alxuraan nekkee nuur ginnaaw bi alxuraan nekkee huda ak njub ginnaaw bi alxuraan nekkee sifa nekk saafara luy faj ginnaaw bi alxuraan nekkee raxma nekk yërmande juróomi yëf yi suñ borom subxanahu boole ko ci ñaari aaya yi nga xamante ne ñoom laa jàng léegi aw lay buy dox diggante nit ki ak boromam dox diggante nit ki ak àdduna ak leer gu koy xamal lépp lu ne nam ca war a duggee ak nam ca war a génne ak njub te mooy li koy orienté ba du jaar ci yoonu ña sànku woon fañ jaar saafara te mooy li koy faj ba mu defaru ba mën a defare yërmande allahu akbar juróom yooyu la borom bi boole ci ñaari aay yaa ayuhan naasu la ñaari aay yépp tàmbulee xad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina nga ne waaw mu ne yaa ayuhan xad jaa atkum bee xad jaa akum la mawid burhaanun bii xad jaa atkum mawidatun min rabbikum allahu akbar ci ci nuróolee alxuraan yi ak waxinam wu yéeme bi ci sóoratu nisaa yi yaa ayuha nnaasu qad jaakum min rabbikum wa anzalnaa jàppal waxin woowu burhaanun min rabbikum wa anzalna bii yaa ayuha nnaasu waaye xad jaatkum mawizatun min rabbikum wa lima fi sudur allahu akbar fee suñ borom nee na ee eh, nit ñi suñ borom wàccee na ci yéen burhaan waaw awlay mu bàyyikoo ci moom mu wàccee leen <laughs> wala boog dikkal na leen awlay mu wàccee leen nag li nga xamante ne mooy leer leer gu leer nañ moom alxuraanul karim fii nag dikkal na leen moom alxuraanul karim nekk aw waaraate bu bàyyi ko ci seen borom nekk saafara nekk ak njub nekk yërmande ñan ñoo moom yoolu lépp nag lil muminin ñi nga xam ne ñoo ko gëm kon aaya ji buy tàmbali du wax yaa ayyuha alladina amanu yaa ayyuha naasu lay wax waaye ñaareelu aaya bi muy daaneel dafa delloowaat mbir mi ca alladina amanu ca ña gëm programme bii yàlla da koo wàccee nit ñëpp ko moom ci biir nit ñi nag ñi ko mën a jariñoo mooy ñi gëm ne yàllaa ko wàccee ndax ñi wan ginnaaw yàlla ne ko euh, ñun on s'en fout li nga wàccee jëf ko bàyyi la ñemale ñu jariñu ci loolu ku ne xam na ne lu jafe-jafe lay doon yàlla nañu yàlla defal tawféex bañ mën a jariñu ci yi nga xam ne moom la wàccee defal ñu tawféex bañ mën a jàng téere bi te comprendre ko bu boobaa dañuy jéem a boole liggéey ak jaamu yàlla ak fuñ mën a bokk ak kuñ mën a doon liggéey ak jaamu yàlla hmm. ak fuñ mën a bokk ak ku kuñ mën a doon ni ma koy faral di waxe ku ci mel ne sëñ eh, sëñ fàllu maane galas maane na la ko yàlla ko wér ku ci mel ne borom doomi soxna yëpp doomi soxna yëpp bu ma leen limee juum nga xam ne yitte loolu dañ koy yitte lool liggéey ak jaamu yàlla xaw tuuti kon mu nekk seenu bàkk te doon message yoo xamante ne dees koy mën a jàngale ci penc mi yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew yi ko wër xale yi nga xam ne ñoo doon nab nabi ci eh, examen yi di wut baccalauréat ñi nga xam ne am nañ ci ñoom ñëpp yal nañ ko muurloo ñi nga xam ne amuñu it ñu bañ a saalit ndax yoon yemut ci benn te itam léeg-léeg Oustaz Alioune Sall mi mën a jàngale di wax ne nit dana am bag bu ñoragut bu ko defee nag mën na koo bañ a amal solo yal na yi ngeen am bañ caa bokk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 defal ñu suturas àdduna ak suturas alaaxira seen mbokk si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu